d'abord li ñu tabax centre commerciale la ñu ngi ko tabax ci 4000 mètres carrés ci biir am na supermarché bu 1500 mètres carrés am na espace grande vente en gros parce que Touba dëkku berne la doo ñëw ba Touba di jaay ay potu tomate 1 kilo ci biir fële après dinañ fa dem di ngeen gis ne am na espace boo xam ne lu jë lu luy luy peese kilo du fa dugg. juróomi kilo jëm si kaw la mooy vente en gros pour yombalal jigéen ñi seen waañ 300 mètres carrés la loolu rekk fa am. loolu moom mooy supermarché bi maanaam dikke nañu investissement boo xam ne 4 milliards la. fii de moom mën nañ ne comme on waxantu amul weddi gis bokku ci ndax xale yëpp ñu nii toog gis ngeen leen ak seen tenue te ku xam lan mooy métier grande distribution. xam ne supermarché bu toll nii lu mu néew néew néew dina démarrer ak 100 emplois. ku fii signé na téeméer ak ñeen fukk contrat ak ay entreprise locale yoo xam ne ñoom tamit lépp lu ñuy produire fii lañ koy indi ko boo dajalee lépp mu nekk 100 pour cent locale muy consommer locale kooku buñ ko amee mën nañ am yaakaar ne client buy sénégalais deretu sénégalais di daw sa yaram. di nga ñëw ne man kat fii laa bokk fii laa jëm te la nga bëgg a di nga ko fekk ak njëg yi nga ko bëggee di nga